déggul rek jàppal ni dafa dafa dafa dafa dafa dafa tardé waaw xam nga gaa yi moom dañuy tarde ba pare ñëw fii di di di di di ay layak yu ca aju waaye ku ngeen déggul rek xam ne ni dafa dafa biddanti waaw biddanti moom lu am solo la <laughs> waaw fii kenn ay biddanti ñu lay waxtaan waaw kenn day biddanti rek mel ni moom ci biddanti la dëkk fekk yàlla xam ne dëkkul ci ci ci ci biddanti waaw xam naa nag euh, tey moom euh, waxtu julli yeggee ca aju moom ñëwul waaw ah, tey moom ñëwul boo defee dañu koy daal di euh, jéggal rek waaw xam naa mm, comme li ngeen di wax rek maa bi xaw ma njaañeen bi ko war a dugal yoo xam naa dafa dafa dafa dafa dafa biddanti tey waaw kon bu ko defee rek incha allah dañuy daal di jéem a xool li fi gën a fës rek ànd ceeg yéen ndax tamit météo Euh, ak ngeen déggut te waral leen ko indil moom itam ñëwut tey tey moom tey moom kenn wax dara ma xanaa ñëwul bëri de waaw ñëwut bëri euh, mu ngi noonu kon bu ko defee rek dañuy daal di euh, yéem a dem ci xabaar yi wala. waaw non kay danañu dab ci yoon wi. météo danañu dab ci yoon wi. waaw météo danañu dab. météo waaw météo noo ko yore di bind. météo loolu tamit. est-ce que fanaanul ci kaw jaww ji. ah nañ koo xoolaat de. lijjanti ah. moom boo ko defee moom ci météo. comme ci kaw la ñuy jógee. ñi ngay jox météo war nañ ci amaat ab jàngat. loo xam nga comme day fanaan ci kaw jaww ji di xool. sedd mm-hmm. beeg ngelaw leeg asamaan si. xam naa daa yéex a wàcc rek. wetu ah. météo nag bon bu ñu demee xam naa mbiru mbiru wàll yu dëgg la de moom. météo ah. mbiru wàll yu. ah bu dee ci kaw la ñu dem di mbiru wàll yu. <coughs> fu ñuy dem. li ah, ci suuf moom mun munuñoo nekk suuf xam la ci kaw. yem ak ñun <laughs> yem xam la ca kaw. waaw. Ah. mbir moom day naar de. daa mbir yoo boo ko xasee jàngat moom sëngam day daw. waaw. borom bee yaatule. xanaan daal nekk ci suuf xam li ci kaw. day tarkal la. day wax lépp waaw. Euh, noonu la bu ko defee rek comme ni ko sama waa ji waxee noonu la ñuy daal di ànd ak yéen rek ci li fi gën a fës daal di euh, dellusiwaat. def mbokki auditeur auditrice su Baol Média FM li fi gën a fës dañ koy daal di doore fële ca Ziguinchor euh, marché chin Mur de Boucotte boo nga xamante ni ni ki démb ci suba la daal di lakk ci. digg marché bi lakk gi commencé nag euh, bi 7 heures jotee ba toftal euh, fukki minutes ak juróom. Euh, sapeur pompier nag ñoo mujjee daal di maîtriser mbir mi daal di koy fay ci nu mu gën a gaawee ci loolu itam am na ay euh, dégâts matériels yoo xamante ni am na fa ay yàqu-yàqu yu bare bare bari nemmeeku woon nañ ko fa waaye nag ñi nga xamante ni ñoo di way takk der yi daal di ci ubbi ab enquête ngir xool lu euh, sabab lile ba tey dañu daal di ñëw ci ñi nga xamante ni ñooy syndicat yi liggéeykat yi yoon. yi nga xamante ni amal nañu grève door ko ni ki démb ak euh, tey jii ñoom nag euh, bilee grève daal ñoom euh, dañu ci daal di ñaawlu li nga xamante ni daal ñoom jàpp nañ ne ki nga xamante ni moo di sabotage yi am ci réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice daal nañ ko fay amal ñoom nag ne nañ bile sabotage daal mu nga amee fële ca fonction publique ña ko fa amal nag euh, di juriste ya nga xamante ni ñoo fare foofu ca fonction publique fonction publique nag ki nga xamante ni moo di ministre euh, Gallo Ba moo ko daal di euh, jiite moom lañ dénk mbirum fonction publique ñoom nag daal dinañu joxañ tuuma li nga xamante ni moo di fonction publique ñoom leen la nga xamante ni daal tënkoon nañ ko ci ay accord jëmale ko ci état bi ngir mu saafaraal leen ko ñoom ñi di fonction publique daal di soppi xaatim la leen sabab ca la leen neex daal di koy euh, doxalee ba tax ñoom nag ñu euh, amal ab grève ñaari fan door ko niki démb ak euh, tey ji Cheikh Yérim Seck daal dinay àddu ci 3 virgule 4 milliards yi nga millions yi nga xamante ni ay parrainage la jógee ci benn bokk yaakaar ñoom nag ñu fësal ko ne am nañu ko moom Cheikh Yérim Seck nag moom nee na loolu mënul nekk moom euh, gëmul loolu ba tax nag moom dafa daal di ànd ak ki nga xamante ni moo di Mimi Touré di coalition Mimi 2024 ñoom ñi nga xamante ni euh, jël nañu ab euh, plainte yóbbu ko fële ca Soleil le quotidien national di Soleil ñoom nag nga xamante ni dañ leen dañ leen a porter plainte ci division de fausses nouvelles li ko waral nag mooy nee ñoom daal ñoo publier yi les chiffres te chiffres yi nekkul loo xamante ni wér na ndax Mimi Touré moom nee na kenn mënul am ay électeurs yoo xamante ni daal xaaju électeurs u Sénégal yëpp nga daal di koy am ci ay parrainage loolu mënul nekk ba tax moom daal mu daal di amal ab plainte jëmale ko euh, foofa ba tey dañuy daal des ci ñi nga xam ñu ngi yóbbu seen ay euh, caution ca fële ca caisse des dépôts et consignation kii di Habib Sy nag moom yóbbu na li nga xamante ni moo di 30 million ni ki euh, démb ngir fësal li nga xamante ni moo di euh, candidature am ci élection présidentielle 2024 ba tey dañu ñëw ci xibaar yi Ousmane Sonko coowam ginnaaw radiation ci fichier ci liste électorale yi moom itam ñu daal di dissoudre li nga xamante ni moo di parti bu Pastef kii di si fay jëloon ci ab dogal nag doon sàkku ñu dugalaat Ousmane Sonko ci les listes ginnaaw loolu nag ñi nga xamante ni ñoo di état bu euh, Sénégal di euh, avocat yi état bi ñoom nag d'accorduñ ci lile ba tax ñu daal di def ab recours jëmale ko fële ca cour suprême ngir ñu da ko daal waaye ñoom nag euh, dañoo daal di caché woon li nga xamante ni moo di dogal ba ñu ci jëloon yóbbu ko fële ca tribunal bu grande instance bu Dakar niki le 12 bi nag ñu mal di le 12 décembre ci la ñu fas yéene àtte li nga xamante ni moo aju ci mbirum Ousmane Sonko jëm ci radiation inscription wu ci liste électorale yi le 12 décembre bi ñu dëgmal fële ca tribunal grande instance bu Dakar euh, salle 4 euh, ci noonu itam ñu ngi leen di convoqué 8 heures ba jàpp 30 euh, daal di convoqué ngir ñu door li nga xamante mooy bile projet ci noonu itam le décembre bi ñu dëgmal daal ci la ñu commencé ci la ñu war a di dugal li nga xamante ni di parrainage maam déposé ko euh, fële euh, DGE nag moom moo daal di sàkku loolu moom ginnaaw bi nga xam moo yor mbirum parrainage yi moom nag daal nay fësal ne le 10 décembre la yëfi di door ba le 18 décembre lay daal di euh, jeex supposé final financement occulte de Ousmane Sonko kii di Alioune Tine nag mu ngi ciy sàkku ñu daal di ciy ubbi ab enquête ginnaaw bi nga xamante ni kii di Matar Diop di ab député fële ci Assemblée nationale moom nag daal di yëkkati le tuuma ko ci kaw Ousmane Sonko nee na Ousmane daal di amal ay ñeneen ñoo xamante ni daal ñu ngi waxtaan ak moom ci euh, ay lobby yoo xamante day waxtaan ak ñoom ci ay contra ci pétrole ak gaz ngir bu jëlee réew mi daal ñu man a ñoŋal seen ay contrat ngir mu daal di koy financé ci élection présidentielle yi ñu dëgmal moom nee na Ousmane Sonko dafa am ñu ko financé euh, loolu la tuddee maanaam financement boo xamante ni jaarul yoon financement boo xamante ni daal euh, normalul moom la daal di yëkkati teg ko ci ndoddul Ousmane Jum Sant moom nag nee na dañu ci daal di ubbi ab lanket waaye itam dañoo war di enquête euh, ñi nga xamante ñoo di ay candidats ngir fa seenee nekk euh, candidat ci élection présidentielle 2024 seen ay financement dañ ko war di gëstu fan lay jóge euh, moo gën waaye itam moom mu ngi sàkku nag kàddu yi nga xamante ni Matar Diop yëkkati na ko teg ko ci kaw Ousmane Sonko mu nekk loo xamante ni daal dañ koy daal di leeral ndax Matar Diop yegg na sax ci ne Ousmane Sonko daal nay bind ab lettre ki nga xamante moo di président Macky Sall ngir mu aaral ko ak famem ndax moom Ousmane Sonko daal ginnaaw contrat yi nga xamante ni daal waxtaan na ko ci ak ay lobbyam ñoom bi ñu dem ba gis ne daal Ousmane Sonko mënatut a nekk candidat ñoom dañoo commencé di menacer famille wu Ousmane Sonko moom nee na loolu moo tax Ousmane Sonko bind ab lettre ki nga xamante ni moo di président ma Macky Sall ngir di saako mu protéger ko li nga xamante ni moo di ab euh, famille grand prix euh, njàngum alxuraan mi ñuy amal ci weer wi ba waral ministre euh, de l' éducation nationale ñëwoon fii ci Touba ci Serigne Mountakha Mbacké di waxtaan ak moom waaye itam moom daal di koy xamal ne jël nañ lu toll ci juróomi téeméeri sëriñu daara daal di leen di dugal ci fonction publique waaye itam génne lu toll ci juróom mbenn milliard daal di leen koy jox ngir accompagner leen ci liggéey waaye faux billets di ay coow yoo xamante ni mu ngi am fan ci biir réewum Sénégal ba waral euh, ñi nga xamante ni ñoo di commerçant yi ñoom nag daal di nañu jóg di sàkku état bu Sénégal daal di ci taxaw ngir saafara ko nee na li waral loolu nag moom ñoom ñoo ci daal di loru ndax bépp phobie bu jóg daal ci ñoom lañ koy indi ba tax ñoom ñu ngi sàkku état bu senegal taxaw ci nu mu gën a gaawee lu toll ci juróom-ñaari soldaar daal di nañuy euh, Israël daal di nañu ñàkk seen bakkan fële ca bande de Gaza ba tey dañuy daal di euh, desandi ci xibaar yi rek daal di dem fële ca. daal di dem fële ca Niger ñoom nag daal di nañuy jël euh, jeexal seen relation entre seen relation partenariat bi nga xamante ne amoon nañ ko ak euh, Union européenne euh, ci wàllum sécurité sécurité et de défense bi nga xamante ni amoon nañ ko seen diggante ak Union européenne ñoom nag daal di nañ koy dakkal ki ñu xamal loolu mooy ministère des affaires étrangères bu Niger moom moo ko daal di koy annoncé ni ki le 4 décembre la ko daal di yëkkati ci ab communiqué boo xamante ni RFI daal dina koy dëggalaat loolu loolu moo fi gën a fës ci ay xibaar ni si tuuti rek ñu bàyyi leen ak El Hadji Fallou Lo mu ñëw ak yéen ci li fi gën a fës ci xibaaru tàggat yaram. jërë ngeen jëf mbokki auditeur auditrice Baol Média jërë ngeen jëf mbokki sportif yi xam naa dañuy daw rek delluwaat euh, fale ca France ca Ligue 2 ba nga xam ngeen ne démb moom match yi fa nekkoon am na solo lool ci seen 17e journée bi euh, ba Ajaccio moo doon euh, door Stade Laval ñaari bal ci dara Saint-Étienne dafa nërmeelu ci kanamu game Guingamp ñetti bal ci benn Angers dafa daan Grenoble benn bal ci dara Torres dafa daan Amiens ñaari bal ci dara Paris FC dafa daan ñaari bal ci dara Rodez Pau FC tamit dafa daan Valencia ñetti bal ci dara Krems dafa daan ñetti bal Girona Bordeaux ñaari bal ci ñaar Concarneau dafa nërmeelu ci kanamu Auxerre <coughs> bal leen ma ñaari bal ci benn ci tamit dafa door Dunkerque 5 bal ci ci dara juróomi bal ci dara <coughs> waaye ñi ngi jéggulu nag baat bee xaw a am problème tey xam naa ci première ligue bi rek su ko defee tey seen quinzième journée bi tamit am na ay match yu am solo yu fa yoo xam ne dana daw bu 19 heures 30 jotee ku lu mel ni Brest Hove Albion dana taseek Brentford bu 19 heures 30 jotee AFC Bournemouth dana taseek Crystal Palace bu 19h jotee Nottingham Forest dana taseek Fulham bu 19h30 jotee Liverpool dana taseek Aston United bu 19h30 jotee Aston Villa dana taseek Manchester City bu 20h15 jotee maanaam 20 h toujours ci. Euh, quinzième journée bi la Manchester United tamit dana taseek Chelsea bu vingt deux vingt heures et quart euh, jotee. xam naa bu demee ba Espagne ci coupe du roi bi Barbastro dana taseek Almeria ci 13h32 ci Valencia dana taseek Real Betis ci 11h dana taseek RD Deportivo bu 11 jotee FC Cartagena dana taseek Alcorcón bu 11h jotee Torresca dana taseek Deportivo Alavés bu 15 heures jotee Anthrax dana taseek Real Sociedad bu 15 heures jotee Burgos dana taseek Arenteiro bu 15 heures jotee Real Sporting dana taseek Unión FC bu 15h jotee bu 16h jotee nag Eldance dana taseek Malaga xam naa loolu mooy xibaar yi fi réew soon ci bitim réew su ko defee rek dañuy des ba léegi parce que fële ca Égypte am na benn journaliste chroniqueur bu football boo xam ne mi ngi tudd Nabil Delite moom nee na kan bi mu gis ci 2023 bi Maroc mooy première. Égypte moo si topp Côte d'Ivoire jël troisième Sénégal nag mi ngi ko placé quatrième parce que nee na Sénégal lim mu wane woon ci Coupe d'Afrique ba li weesu ak li mu wane ci match yi am na différence euh, bu mag. su ko defee rek ñu dem ba léegi nga xam ne génnee nañ entraîneur yi nga xam ne ñoo ëpp xaalis ci euh, ci Afrique bi suñ ko gisee nag. Euh, Jamil Bernard bu Algérie bi moo ci ëpp lu muy fayu parce que mi ngi fayu vingt mille huit deux cent huit mille euros wax boo ko calculer ci CFA mu nekk cent trente six million quatre cent quarante mille francs Aliou Cissé moo jël huitième moom mi ngi fayoo quarante six mille euro soo ko calculer ci CFA mu nekk trente millions cent soixante dix mille francs bu ñëwee nag euh, suñu leen yu jigéen yi nga xam ne ñoo doon def qualification coupe du monde bi ñoom euh, qualifié nañ ginnaaw bi ñu dooree seen match aller bi ñu ngi dóoroon Algérie 4-0 retour bi nag dañoo machine nul donc loolu daf leen di permettre ñu qualifié am na benn jour nag boo xam ne bu ngeen ko déggee xam naa tur bi sénégalais la leen jox mais français la bu tudd Tidiane Diallo mi ngi doon joué ci U17 bu France bi. moom nag bi mu tasee taseek Sénégal ci quart de finale bi mu joué ba pare xam naa deretu Sénégal bi moo yëngu mu dem giseek Serigne Saliou Dia mi coach U17 bi ne ko moom dafa bëgg a France ñëw joué ci Sénégal mi ngi dox nag les relation ba nee nañ sax démb ñoom ñaar déggantewaat nañ téléphone muy wax ne na ko ci jàppale ba moom mu del si Sénégal joué bu ñu demee nag ci natation yi mooy wàllum fee bi sport fee boobu am na benn jigéen boo xam ne tamit uh, mi ngi tudd Oumy bu nekk franco sénégalaise judd en 2003 moom moom mi ngi def lu am solo fële mu nekk ci France di jouer bu baax suñu demee suñu demee ba léegi ci handball bi tamit Lions yu Sénégal yi ñoom qualifié nañ ginnaaw bi ñu daanee Chine 22 euh, sur 15 euh, dañuy wàcc nag xam naa ci euh, Mbacke Bawol fii ñu nekk nii parce que olympique bu Mbacke moom mi ngi dajale ay juróom yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekkoon Walidaan ak. raay bi pour ñu def benn masse jumelage boo xam ne dafay nekk seen digganteel ak Benfica bu Daara match boobu nag ma ngay amee ca Daara Jolof le 23 12 2023 bi nga xam ne ci leen jëm sëñ Fallou xam naa loolu mooy xibaar yi fi jotoonu ruus ci wàllum tàggat yaram. tàggat yaram. jërëjëf moom moo Hadji Fallou Lo moom la ñu àndaloon ci xibaaru tàggat yaram yi mu indil leen la fa gënoon fës ci ay xibaar bu ko defee rek incha allah dañuy daal di ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di euh, xibaar yi biir réew mi ak bitim réew ñu faram wàcce ko ànd ceeg El Hadji euh, Fallou Lo leen ku ngeen déggul mu war na wax te waxul daa biddanti waaw ku biddanti nag amul lu mu leen di expliquer. fexe leen ba buy expliqué bu leen ko déglu waaw foofu laa yem euh, bu ko defee rek dañuy daal di euh, doore waxtaan bi li nga xamante ni moo di euh, lakk gi nga xamante ni mu ngi faral di am ci marché yi ñu koy seetlu am na fii ci Touba am na Mbacké am na jurbel am na Ziguinchor am na Dakar Petersen ak feneen ak feneen ak feneen Sëñ Fallu waaw sëñ Fallou lakk yi de fi ne doy na waar lool parce que euh, commerçant yi ñu ngi jooy seen marchandise yi yooyu parce que xam nga góor góorlu ba am sa benn table di ci góor góorlu ba am sa benn góor góorlu ba am sa magasin nga wàcc xëy ñu ne la lakk na lu xaw a metti la lu metti la ci xol mais liñ ci jàngat rek mooy Sénégal depuis indépendance ba léegi ni marché yi mel rek la mel marché yi dañ ko man jàpp naa ne dañ ko war a moderniser moderniser ko mooy ñu toj marché yi defaraat ko def ko ay centre commercial wala ñu def ko ay marché yoo xam ne au moins oto euh, chauffeur bi bu ñëwee bu bëggee dugg ci biir dana ma am benn tëli bu muy jaar ci biir marché bi peu près euh, sëñ Fallou bu ñu doon woon marché Sénégal yi pour nga gis ci marché bu am bouche d'incendie tamit euh, lu lu jafe la te chande yi dafay baax ci marché parce que bouche d'échange bi buñ ko amee dafay faciliter que marché bi buy tàkk chapeau yi danañ mën a dugg ci biir mais da gis yenn saa benn marché boo xam ne day tàkk chapeau yi dañuy ñëw taxaw a 100 mètres wala à 200 mètres ci ci marché bi di xool ñoom fan lañ war a mën a jaar bu dugg ci biir marché bi beneen bi tamit ñuy xool parce que boo demee marché bi marché Sénégal yu bari boo demee da ngay gis ne nit dafay daaj dañ koy bàyyi ci benn euh, yoon boo xam ne benn table 1 moo fa nekk mu def fa benn un mois wala benn six mois yokk taabal bi def ko un mètre cinquante ñu dem benn six mois mu commencé daaj benn casque ne waan moom fi lay dugal ay marché dem ba si yàgg nag mu def ko kerche carrément léegi yoon boobu nga xam ne moo fa nekkoon pour nit ñi di fa jaar chapeau di fa jaar pour leen amee tamit yooyu yëpp dañ koy fat donc beneen bi tamit mooy da ngay am sa cantine boo xam ne au lieu que nga dem. lekk defi sa demande courant ñu indi la sa contrôle nga branche branchement normal bi mais da ngay gis ne boo duggee ci marché yi fii lii dañ koy jàll jàllaale jële fii yóbbu fee jële fii yóbbu fee te au lieu que ñu woo sa un technicien d'électricité boo xam ne dafa qualifié mais dañuy ñëw fekk euh, am jóob caat boo xam ne mën naa taqale ay fiir rek mu taqale fii lii ñu daar koy yooyu yëpp nag su amee ci biir marché bi maanaam marché moom dootul am sécurité parce que day yomba tàkk ñaari fiilu courant yu maasante yow xamoo ba xam fiil bi attan na voltage yu courant bi nga koy jox wala attanu ko parce que bu fekkee ne yow da nga nekk commerçant boo xam ne yow benn lampe dong ngay ngay utiliser nga dend acteur boo xam ne ay machine 217 la yore ay machine korñal kooku courant bi muy utiliser mu ëpp doole yow courant bi nga war a su ko defee bu la xëccalee courant am na nu sa fiili courant di tàngee yenn tàngoor yi dafay ruy dafay yàq machine ñu xool Euh, di euh, municipalité bi tamit war na mën a jël su fekkee ne moom moo yor marché yi war na ci mën a jël ay matukaay matukaay yi muy jël mooy mu moderniser marché yi marché bu fekkee ne dañuy wax ne depuis indépendance wala avant indépendance ba léegi marché bi ni meloon la mel dara modi dara yokku ci dara wàññeeku ci amul dara luñ ci war a mën a réfectionné wala def nii loolu war nañ ko xoolaat xool ñoom naka la ñuy def ba marché yi moderniser ñu def ko ay supermarché buñ ko mënta def supermarché tamit kanting zing yi fi nekk ak dénk yeeg table yu ndaw ñu defaraat ko tabax ko recensé ña fa nekk tabaxal leen ko dugal leen ci biir nga xam ne boo ñëwee da ngay nekk jàmm def na mais marché yi daal ni muy lakkee sañ fàllu loolu jaxasoo na lool lool parce que munoo toog benn 15 jours wala benn un mois boo xam ne doo dégg ba xam marché sàngam tàkk na marché sàngam tàkk te ñu di yombalal timit fi sapeur pompier di jaar ñu def ci ay bouche d'incendie marché day am bouche d'incendie su ko defee lakk ji mën a yomb bu sapeur tardé sax fekk ne formé woon nañ yenn responsable ci biir marché yi nga xam ne su danañ mën a utiliser yenn bouche d'incendie ñu ñu ñu former leen ñu utiliser bouche d'incendie yi nga xam ne balaa sapeur yi ex au moins ña fa nekk defoon formation dana mën a wàññi lakk ji sëñ Fall. Mhm. Euh, am na solo kon euh, mu ngi noonu ñu bàyyi ci xel marché yi moom comme li nga wax rek moderniser tôt ou tard dafa war a am waaye problème bi mooy toujours euh, sénégalais yi xamuñu duñu préparer mbir quoi. Mhm. man dama koy wax toujours mhm. euh, xamuñu que ne mbir boo koy defar da nga cee war a programmer positif que négatif. Mhm. surtout marché. mais dañoo nekk réew moo xamante ni tey boo fekkoon nit muy defar këram. nga ne ko est-ce que yaa ngi ciy programme buy lakk. Mhm. da lay da mhm. waaw da yuuxu. waaw pareil que marché yi tey boo fekkoon ñu koy defar. Mhm. nga leen di wax est-ce que yéen a ngi programme buy lakk. dañ lay yuuxu. cest di dire que positif rek xalaatuñ ne war na mën a am négatif. mooy waral heure bu yi amee day metti ci ñoom parce que préparé wuñu ko woon. boo xoolee. même problème bi marché yi am ci jamonoy lakk même problème bi moo am ci marché yëpp Touba la fois passée ban problème lañu amoon problème mu sapeur fu mu jaar ba dugg pour fay lakk gi parce que ni ñu nekkee baaxul Mbàkke pareil Jurbel pareil ak feneen ak feneen ak feneen même problème bi lañ lay nettali d'abord beneen bi mooy branchement courant yi waaw dafa am branchement courant yoo xamante ni yàgg na boofu marché ba sampoo bañ dugal fa courant ba léegi nii xoolaatuñ branchement yooyu mhm. branchement yu yàgg yu dem ba bàyyi nga xam mën na mën a indi lu nekk cest à que branchement yu yàgg yooyu dafay am solo ñu koy saytu ci biir marché yi loolu mooy logique bi parce que yooyu tamit li mu koy indi bari na trop ak yenn yi nga xamante ni ñu ngi koy sëf courant bi comme ni nga ko expliqué yooyu tamit bokk na ci ay bagages yi nga xamante ni mën na indi lakku lakk gi mais toujours rek mooy ñu gën koo moderniser ba yu baree baree bari mën a ñàkk te mën a contrôler lu bari problème de contrôle la ñuy am parce que day débordé wu marché yi ñoo débordé wu te débordé boobu muy def problème d'organisation la te problème d'organisation mbaa marché bi am nañ ci wàll mais surtout état parce que am na marché noo koy liggéeye mënoo wax a wax ba du déborder marché dafay am ay yoon mais marché bu ñu demee ba occupé yoon yi jaaykat yi dem toog ci yoon yi mujj samp fa cantine mënatuñoo jóg mais day débordé ban marché nga mën a dugg mu libre carrément nga mën a jaar fu la neex ci yoon yi mënul nekk ci kaw nit ñi ngay puusante te yooyu yëpp parce que dañ dul programme après lan moo war a xew ci marché bi ndax suba mën naa lakk wala déet ndax suba war naa mën a da dugg ci biir marché bi ay camion gaare ci biir marché bi di fa fanaan yooyu bu mbir amee nan la nan fan la nit ñi di jaar pour dugg moo tax yooyu yëpp dañ ko war di programme problème mu programmation nag dañ ko mës a am ñun ndax li ñu gëm mooy toujours day positif du négatif te mbir nag boo jàppee ne toujours day positif buy négatif dalay lay te te te loolu mooy problème bi parce que nit bu taaba taaba ba dajale ay mbiram mu ñëw ne fuuf moom wax yàlla euh, doy na war dañuy daal di euh, dikk ci mbirum phobie yi euh, même jaaykat yi tamit ñu ngi sàkku état bi taxaw ci parce que ñoom ñoo ciy loro fan yi moom mbirum phobie yi moom wër na Sénégal 88 la 628 19 05 wala 88 628 81 08 pour ngeen mën a ànd ak ñun ci émission bi. sëñ Fallou. yàgg na Sénégal de. trop waaw phobie yi. dañoo am nday ndaxte fii nga gis benn kilifa guñ jàpp ak ay faux mhm. muy réccoo ko yooxu ak a négocier gars yi fexe ba yóbbu ko ñu toog 15 jours wala mois gisaat ko ci biti muy taxawaalu. ñu ne daa feebar ñu ne daa feebar. Mhm. gis nañ fi ay kilifa yoo xam ne tamit ay malet lañ leen jàppee commerçant yi nag wax nañ dëgg parce que lépp ci seeni loxo la ñuy mujjee. mais ñi ciy gën a loru nag mooy sama classe gi nga xam ne xàmmewuñu bu baax ak bu bon ñoom boo leen jox rek ñu consommé. ñu consommé ñooñu nag ñooy am problème parce que ñoom lañuy jàpp yóbbu leen ne ku leen jox faux billet bi ñu naan xamuñu ko ñu ko jox ak diw laa ma laa taseel ak boutique baa moo ko delloo. donc mhm. ñoom ñooy perdant yi te fekk ne ñoom seen yoon nekku ci ils sont innocents mais nag léegi faux cim réew maanaam ci réew mi lañ ko defaree rek wala mu jaar ci frontière yi dugg. ñaare am defaree ci biir réew mi mm-hmm. wala ñoo dugale ko ñu dugale ko ci frontière réew te jàpp naa ne xanaa bii aéroport moom xanaa suñu militaire yi fa nekk xoolewuñu ba foo biyee di leen romb parce que gis naa liggéey bu rafet bi ñu def ci wàllum drogue yi ndaxte drogue bu fa jaar moom danañ ko fexe ba jàpp ko mhm. donc ki jàpp drogue moo xam nga ne du bàyyi phobie donc ci frontière yi lañ ko mën a jaarale def ko ci ay mallette dugal ko ci biir wala ñu indi ñëw ba Sénégal ñu toog seen biir yi nekk def ko te jàpp naa ne tamit suñu sécurité bi weesu nañ fu ñuy toogee ak machine yii fi nekk nii ñuy toog te mënuñoo détecter machine phobie yi mhm. donc nag lan mooy base phobie bi phobie donc am nañ ay ndey ci biir réew mi mais ñan ñooy seen ndey parce que duñ jël am am yàmbar mu mel ni am am am Leuz Baol wala Kamoori mun moom mu di ko utiliser parce que xamuñu fu ñuy jaar ba defar ko xamuñu fu ñuy jëlee papier bi ñu koy defaree wala encre bi ñu koy defaree donc ñi nga xam ne ñoom ñoo koy defar buñ leen identifier woon te identi man nañ leen a xam parce que sénégalais nekkuñu ay cuune ba duñ xam fi liquide bi jaar rek bii yeeg affaire yooyu mais ñooñu su fekkee ne dañoo doon ay kilifa nekk ci réew mi di liggéey. te ñu xam leen mënuñu leen a teg loxo parce que euh, suñu suñu suñu député CEDEAO boobu euh, ñu di ko ñaanal mu gën a wér ba delluwaat place am muy Cissé loo taxaw na assemblée fii mu ne suma ma procureur wooyee ma génneel ko ci ay preuve mais ba léegi kenn woowu ko ci laaj ko ci dara parce que nee leen lii ngeen di def nii. njuuj beeg njaaj beeg faux billets yeeg triant yi ngeen def ak tappale yi man maa ngi taxaw fi assemblée taxaw wax ko ko ne sama procureur woowee ma génnew ci lan moo tax nag ñoom même buñ ko woowul mais nañ ko déglu sax mu jox leen quelques renseignements ñu sukkandiku si bu def ko mais faux billets moom liñ ci mën a wax rek mooy ñi mhm. koy def ci réew mi moom duñ duñ duñ ay cuune ñi koy def ci réew mi moom du ay ay ay ay ay samba xamu nuñ ko tuddee samba booy xaw ma ñi koy def ci réew mi moom ay kilifa yu mag lañ am fi ay ndomba tànk def fi lépp mais ñooñu nag ñoo nekk ndey léegi nag jàpp benn innocent boo xam ne ku mel ni man la daa tase kenn mu may ko ci benn xamu ci dara mu dem ci bute bu ñu weccee ko après ñu ne mooy yor foo bie bi coow lu cancer suñ leen bëggee détecté danañ leen détecté suñ leen bëggee jàpp danañ leen jàpp commerçant la ñoo yey yuuxu wante population bi si boppam ñoo waroon a njëkk yuuxu commerçant yi parce que ñoom lañ koy jox ñu yóbbu ko ci commerçant yi dañ mm-hmm. waaw am na solo 88 la 628 19 05 wala 88 628 81 pour ngeen mën a ànd ak ñun ci émission bi bu ngeen jaaree foofu rek incha allah ñu leen jël mën a ànd ak yéen euh, am na solo xam nga euh, su ma juumul mas naa ko fee wax xam nga doomu baadool la mhm. ku mucc ci faux la doomu baadool la mhm. mucc ci faux la waaw la boo ko ñëwoon tàllal faux billet xamu ko mhm. te doomu baadoo la hmm? liy defar faux billet hmm? lépp boo boolee lépp benn boo ci jël mënu koo jënd waaw benn boo ci jël rek doomu baadoo la mënta jënd booba matériel c'est-à-dire que xam lan moo am Sénégal naxante xawma jaar ci bopp gaa yi jàll waaw sunu réew mii moom mhm. sun force de l'ordre et de défense et de sécurité xamu ñu ko waxee noonu mhm. capable nañ lu nekk seen métier capable nañ lu nekk mënuñu koo jàpp xamuñu leen impossible mhm. parce que jàpp nañ fi ay nit du benn du ñaar du ñett ñi fi jàpp ñépp am na fu ñu bokk am na màndarga bu ñu am kuñ ci jàppul baay jàpp nañ ci doom waaw ci jàppul baay jàpp nañ ci doom te ñiñ ci jàpp ñépp ñépp ñépp ñépp ci langue politique gi lañ nekk. lañ nekk waaw ñi jàpp ñépp ci langue politique gi nekk waaw léegi pourquoi ba léegi ñun mënuñoo xam lii fan lay jóge man du toog sax di xalaat naan dañ koy indi senegaal ak yo déedéet parce que gars yi jàpp naa ne yombeewu ñu noonu gars yi taxaw gaa yi jaar ci aéroport wala ñu jaar feneen ak feneen ak feneen feneen dugg ci biir réew mi ci gratuit non gars yi waaye dew ñu noonu. Ah, waaw non yi waaye dew ñu noonu. Mm-hmm. au moins dañ ci jàpp. beneen mooy man ba ma dalee dégg faux billet ba léegi ñu naan arrêté nañ ci nit ba léegi mm-hmm. ah. dégguma kuñ téye ci kaso bi man personnellement ñoo mhm. ma téewuñ ci kenn ci kaso bi de mais dégguma kuñ ne téye nañ ko ci kaso bi ci ñi ma ci xam ñu ñu jotal leen cee jàpp de gisuma kuñ ci téye ci kaso bi mhm. te jàpp bi gën a garaaw ah mënta mënta mënta weesu kee Bougazelli xaw ma mënta weesu kooku bi gën a garaaw laa wax de mënta weesu kooku lañ naan loxo ci poos boobu benn mën benn gënu koo garaaw te tey jii boo nee ko anamu fan la nekk mu ci mu ci njabootam. léegi kooku bu nekkul ci kaso bi. kan nga mën a jàppaat ne mu ngi ci biir kaso bi. kan lañ fa jàppaat loxo daaj ji ñëpp gis ah mën na gisuma ko moom laa fa gis ñu jàpp ko loxo ci poos ñi ci des ñëpp damay dégg information bi nii rek wala ma liir information bi. Mhm. mais moom loxo ci poos ñëpp gis. waaw c'est-à-dire caaxaan ak tappale toujours dama koy wax doxalut réew. boo ko jéemee doxal réew benn yow yaay loru wala sa askan loru actuellement nag askan bi ñoo mën a loru ci lii hmm. parce que ay borom doole ñoo ko seq ñoo koy def pauvre du ko def ay borom doole ñoo koy def borom doole yooyu di ko def ah, ah. boole ñu seen bopp ci askan bi boole ñu seen bopp ci askan bi léegi askan bi mooy ñan mooy ñun pauvre yi hmm. ñun doomu baa doole yi ñun ñooy ñun ñooy askan bi hmm. ñun ñooñ ñun lañ koy jox ñun ñoo koy consommer te suñu biir ñun ñoo koy weccoonte suñu biir ñun ñooy naxante suñu biir looloo fi am te pourtant gars yi mën nañ koo régler dañ cee jubluwut wala yitteel leen wala yaa quelque sos boo xamante ni mu ngi ci biir bu leen tee def li ñu war a def mais gars yi capable nañ pour régler rek lii moo gën a ndaw ci li ñu war a li ñuy régler mais est-ce que mënuñu ko woon a officialiser nit ñi am jàmm waaye mais kon ñu rey nit ñi <laughs> ñu nit ñi day tax nga am xaalis rek sëñ Fall daa am xaalis kay waaye ah, bu ko officialiser ah hmm. suñ ko officialisé woon nit ñi mën a am jàmm ci faux billets de parce que comme faux billets la ñu bëgg te faux billets ñi koy defar li nga wax ne ci koy defar euh, doomu baadoolo bi mënta jënd li ci gën a ndaw non non mënta xàmmee faux billet euh, lu dul faux billet mais kooku imaginel que tey mu génn taseek nit nit jox ko ko wala nga ñëw jënd ñu jox la ko wala nga dem fenn di jël xaalis ñu jox la ko te xamuloo ko nga génn dem ci station yi wala fenn di ko fa joxe ñu ne la kaay foo ko jëlee yow lan ngay expliquer amuloo loo expliquer lu dul démb lañ ma ko jox dañ ma ko delloo ci boutique beeg yooyu léegi nag waxuma ne nañ ko officialiser mais dama ne buñ ko bàyyi woon au moins. Mhm. <laughs> nit ñi mhm. am jàmm. ñu bañ koo xàmmee nii dugal ko ci biir bàyyi ko su ko defee ñëpp am jàmm parce que ñi ci perdant yi mooy population bi rek. kese kese kese. xam nga daal lu ma ci seetlu. Mhm. boo xoolee 2019. Mhm. nii la affaire deme woon deux mille fin 2018 2019. waaw faux billets yi nii la baree woon. nii la baree woon waaw. fin 2023 jàpp vingt 2024 noonu la baree waat. yaa problème gars yi. xam nga la mooy problème bi. Mhm. dañ koo bëgg a profité ci biir campagne bi. très bien pour mën koo wecceeku. très bien léegi nag moo tax ma ne la. ci biir campagne xam nga euh, sëñ Fallou ci biir campagne bi mën nga taseek euh, kenn hasard. Mhm. ñu jox ko ci mu ñëw may la ci parce que actuellement si kanam tuuti da nga gis ni xaalis bi dina circuler te yu bees lay doon. déggoo li ma xaalis bi dina circuler doon yu bees. Mhm. parce que yow fi ñu toll nii bu fekkee ne da ngaa mel ni man musoo téye billet 10 000 bu bees tàq boo xam ne boo ko lemee mu xotteeku. Mhm. ñu jox la ko yow li ngay profité mooy lem dugal sa poos rek xool noo ko tase. mu waaw léegi est-ce que boobu ñu la jox nag bu baax bi la wala bu bon bi la te ci kanam tuuti fii ak 20 jours xaalis dana circuler bu baax. si parce que politique bi tijji na te politique bi bu tijjee ñëpp Sénégal moom ñëpp ay politiciens lañ. te ah. politicien bi nañ ko jàppee mooy da war a seet si jox ma xaalis. mais ndax li may indil nag léegi lu baax la wala lu bon la. mu nu ñu ko xàmmee. loolu looloo problème bi moo tax mhm. nañu xoolaat langue politique bi bu ñu bëggee xam foofu yi. waaw nañ ko xoolaat. waaw kay parce que lii ab seetlu remarque laa ci def. Mm-hmm. chaque année nii lay demee. chaque élection phobie yi day gën a bëri. waaw day gën a génn jàpp nañ diw. waaw baax na dañ bañ a régler loolu rek te nekk fii di di xam nga ñun problème bi mooy da wax gars yi duñ la dégg. ah déedéet. waaw ah, waaye. buñ la dégloo seen bagage du dox. waaw ah, loolu la problème bi ah yàlla baax na ñu déglu far force de. Euh, ba tey dañuy daal di ñëw euh, comment dire Cheikh Yérim Seck. Mhm. moom nee na li Mimi Touré wax da cee ànd. benn boo ko yaakaar mënuñoo am 3 virgule 4 millions euh, parrainage journal bi ko publié woon Mimi Touré moom la porté plainte division de fausse nouvelle. waaw noo <laughs> ñoom maanaam ñoom dañuy nax seen bopp. dañu faal ñoom dañuy nax seen bopp parce que li inscrire ci électoral bépp <coughs> bu bàlleen ma bu ñuy man ay 4 millions ay pochards lañ 4 mhm, mhm. millions pochards léegi nga jël léegi deux tiers bi ne man lañ paraneel ça veut dire que kon ñi si des opposants yi si des yëpp amuñu ko leen paraneel mhm. loolu xel war na ko mën a xam ñu xool ne bu ñu reculer ci législatif yi ñoom ñoo perte si hmm? bu ñu reculer ci référendum bi ñoom ñoo perte bu ñu reculer euh, reculer un peu ci communal yi ñoom ñoo perte mm-hmm. Aly Ngouille Ndiaye génn na ci ñoom ñoo perte Boun Dionne génn na ci ñoom ñoo perte euh, Mame Boye Diao génn na ñoom ñoo perte Mimi Touré génn na ñoom ñoo perte mais donc ñoom seen liste électorale bu nekkoon par exemple 1000 ñoom ñëpp ñu génn au moins kay léegi dañ naan 50 pour cent lañ dese wala 40 pour cent wala au moins sax 20 pour cent. kenn ku nekk de moom gàtt gàtt yóbbaale na 2 pour cent. ah waaw wala boog ñooñu génn ci seen euh, biir ñooñu amuñu woon euh, électorat dañoo ñëwoon noonu rek di seetaan si mais euh, gis nga loolu Mimi Touré def nag porte plainte moom da koo def rek pour Sénégal ni Mimi Touré ngay porte plainte mais moom mi ko def xam na ne du ci am résultat. Hmm. est-ce que duñ jël dossier bi sax du ko ci ay trois à classé. parce que fii toll nii ñoom am nañ beneen problème bu leen dal lu dul nekkaat fii di créer ay problème justice di dem nekk ci di ñoom fi ne li leen tal mooy ñoom nan la ñuy def ba regle seen problème yii ñu am ak ak euh, waa Pastef yi pour mën cee génn pour mën a dem ci élection yu jaar yoon élection yu simple amaan nag Mimi Touré moom lañ ko doon wax rek gis ngeen nekkoon na ca ba muy neex am na problème génn na fa donc tata mini moom man su ma doon moom damay rangé wu ci ginnaaw kenn rek conserver sama euh, kiiwu électorat nekk ci li ma nekk di politique bañ leen a xas bañ leen a ŋàññ parce que fi ñu toll nii lépp lu muy ndax tamit dañ naan ba muy neex bokkoon na yaa bokkoon ba muy neex mu safkaani nga génn loolu rek mooy problème bi mais ñu jàpp ne moom 3 millions yi ñoom bu ñu ko waxee tamit ba pare ñu nekkaat ci biir di demander tamit ay ay ay ñu leen parrainé wala ñuy def nii dañuy nax seen bopp rek parce que ñoom su ñu defee seen évaluation xam na ne ñoom buñ amoon cinquante pour cent tamit 30 pour cent yi dem na parce que ñi ci génn bari na sëñ Fall loolu moom ay naxante la ci biir rek mais mii moom plaintam bi xam na ne amul sens. <laughs> am na solo waaw euh, comme ni ko sëñ Fall wax jo Fall waxee waaw xam nga man des fois gars yi ay ree lañ may def xam nga théâtre bi faaw mu bàyyi faaw mu jeex ko man xool naa ba xool daal mais yaa lañ théâtre c'est que réew réew réew caaxaan yoru ko barke yàlla mhm. xam nga sénégalais yi dañoo màgg mhm. lawoon wonni na te ñoom xam nañ ne lawoon wonni na mhm. fii loo fi def rek te teguwul ci logique bi rek gars yi am na luñ taxaw pour demantir ko comprendre man nag duma balaame duma balaa mee tey ñoom ñi nga xamante ni ñoo ay seen ay parrainage ñoom waa benn bokk yaakaar xamu coalition benn bokk yaakaar. Mhm. duma leen balaa mi mais dafa am lu wóor loo xamante ni ci la journaliste war a sukkandiku. Mhm. muy le quotidien. ci lan lañu war a sukkandiku. Mhm. mooy ndax li ñu jëli dëgg la wala du dëgg. xam nga tamit waruma nangu man lu ñu ma jox ma consommé bu ko askan bi dee nangu. mais en tant que journaliste. Uh-huh. waroo nangu loolu yow. ah normalement. yow waroo nangu yow yow lépp lu ñu teg sa loxo rek yow nga consommé loolu du du rôle journaliste. Uh-huh. waaw journaliste au moins war na mën a xool lii ba xam dëgg la wala dëgg war na xool ba xam lii est-ce que jaadu na wala jaaduwul. Uh-huh. ma doog di ko titré wala ma koy doog di dugal fenn. mais maa ko njëkk a publier wala man dañ may jox dara ma dugal ko. mais nañu bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi ci loo xam ne sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp xam nañ ne lii logique yow nga bëgg koo gëmal sénégalais yow en tant que journaliste nga bëgg koo gëmal sénégalais ci bar contexte nga koy gëmale sénégalais même li mu def logique la yoon la war na koo def waaye problème mooy mimi moo placé tout pour taxaw di xeex benn bokk yaakaar. c'est ça loolu mooy bi rek. mais moom li mu def nii war na koo def mais jëmmi Mimi Touré ci boppam moo moo placé wul pour taxaw di xeex. benn bokk yaakaar logique bu mu fa mën a jëlee donte ni dangay xam ne lii nii logique la quoi mais da ngay xam ne bu doon mu nga fa du demee nii. parce que am na ay jamono mu nga woon fa te demee wutoon nii. te lii yàgg nañu seetlu ne benn bokk yaakaar yàgg nañu doxee la leen soob. Mhm. comprendre nga mais moom ci boppam moom mi mi moo war a moo war moo war a xam ne gars yi dañ ko bàyyiwut xel. parce que sénégalais yi mhm. nee nañ Dakar du saf ñaari yoon. Mhm. saf nga la ngay saf ba pare. ba nga safee defoo la nga war a def génn nga ca safet ga tey nga bëgg ñëw imposer pour safaat impossible donte ne li muy wax li muy wax li muy li muy dénoncer ni c'est juste quoi war na ko mën a dénoncer parce que logique la donte ne ñun moom mm-hmm. ak foo mën di bokk waxal logique bi rek mm-hmm. mais da mais nag day am ñu placé pour mën a wax mm-hmm. xam nga wax nag neex na waaye est-ce que placé nga pour wax ci lii dafay am mais Mimi moo placé wul pour di xeex euh, benn bokk yaakaar ci ay élection yu ca aju parce que moom mu nga woon fa Ah, yaa bokkoon ba muy neex saf kaani nga génn nga génn léegi saf na kaani génn mu bëgg a taxaw di dénoncer yenn yi waaw ah, léegi ku lay déglu ah, ñoom sax ñoom sax ay reer la la ñuy def parce que buñ déggee ñu naan moo moo porte plainte moo def ne te est-ce que plainte bi sax yéexul parce que biñ ko publier ak léegi euh, <laughs> plainte bi léegi mu am fende <laughs> wala gars yi ñoo yéex a siiwal plainte bi plainte bi léegi mu am fende plainte kii bi xam nga man jàpp naa opposition bi lenn la ñu waroon a xeex mm-hmm. mooy ñu xeex ne ñoom nan leen won machine parenage bi nan lay trier électeurs yi doublon yi nan la koy trier ñu wax leen ne leen yéen képp ku déposé parenage matal da ngay bokk ñu xam ba pare ñu xeex tamit ne ñoom dañoo am naataango boo xam ne mi ngi ci ay jafe-jafe dañ ko war a juge génnee ko parce que juge bi joxe na ndogal ba pare. loolu arrangé leen léegi nag boobu moom arrangé leen non non mu arrangé leen parce que xam nga lan la hmm. man ci sama xalaat bu gàtt laay wax man jàpp naa ne moom fi ko nit ñi du teg ak li ko nit ñi xalaatal moom nekkul foofu parce que soo déggee ci ay discours am sañ Fallou hmm. wax ko ci benn yoon danañ seet nangam danañ topp nangam danañ vérifier nangam mais discours yi ma déglu yi ma déglu laay wax na parce que hmm. nit ñi moom boo waxee dañuy corriger mais <coughs> bale ma toujours day wax ne naka la ñuy def ba suqali secteur sàngam mm-hmm. naka la ñuy def ba fiscal yi ñuy génnee retourné waat ñëwaat ci biir réew mi mais su fekkee ne nag yow Sëñ Fall da nga bëgg a développer Sénégal ma bëgg a développer le Sénégal ma am benn xam-xam parce que nit mënut a matale di wax ne man ci matière bi nga xam ne ci laa am xam-xam nii lañ ci war a liggéey pour mën a suqali fiscal bi Mm-hmm. yow nga am xam-xam boo xam ne danga naan nii lañ ko war a liggéey ci mbay mi ngir suqali ko man jàpp naa ne yow soo nekkee président war nga ma mën a teg sa wet ngir ma suqali secteur boobu nga xam ne am naa fa xam-xam yow nga mën a suqali secteur bi nga am xam-xam su ko defee Sénégal mën a développé parce que mm-hmm. benn nit mun te développer secteur yëpp mais soo déggee ci ay ay waxam toujours dafay wax ne secteur sàngam buñ ci defee nangam wala ñu jël nangam def ko ci loolu dana suqali ko donc opposition waroon nanoo mën a xeex loolu mais pas nekk fi actuellement di porter plainte di créwaat ay problème parce que ñoom il est temps il est temps que ñoom ñu xam ne ñoom ñoo war a mën a fuqati réew mi ci ci ci loxo yi mu nekk wala ñoom ñu xam ne ñoom ñoo war a suqali Sénégal mais nekk fi di delluwaat ay justice di changer programme mu nit ñi dafay indi yeneen yeneen yeneen i kii rek yeneen i jafe-jafe. Mhm. na solo am xam nga tey li ma la wax dafa mel wax naa ko fi démb nag. maanaam ñii di opposé wu nii. Mhm. opposé wuñu pour xam naa nag am na koo fi waxoon ñu ko mais opposé wuñu pour askanu Sénégal waaw bu ñu dee dix candidats kenn wala ñaar ñoo ci opposé pour askan bi xam nga naa dàq sama intérêt mhm. wala naa jaar fee ngir askan bi gëmma mhm. loolu nax nax sa bopp la xam nga waa waajare legetu kese xaw ma naxul ay bëy xaw ma naxul ci bëy waaw très bien wala lekk naa ba suur te sa biir bi di jooy xiif mhm. naxoo kenn sa bopp ngay nax mais gars yi xam na mooy seen problème mooy yii ñuy def nii defuñu ko pour maam dañ koy def ngir dañoo am gëm-gëm di ko def déedéet gars yi li ñuy def nii nañ ko def pour nu ñuy def ba convaincre askan bi ñu xam ne ñun ñoo ñoo ñuy teel mhm. comprendre nga ah. ay naa plainte fee ay nañ dem xeexilee gaay gëmuñu yooyu gaay yi ci jamono yi nan nañuy def ba convaincre gi xam nga kañ laan gëm ne gars yi gëm nañ ko mhm. mooy lii nga wax nii te lii dama ko yàgg di wax nee leen man candidat yi yuuxu yépp kenn ku nekk naan candidat laa dama bëgg a nekk candidat mhm. ku nekk di xëccal sa bopp di yóbbu ci jamono boo xamante ni ñoom ñëpp dañ ne ñoo bokk benn gëm-gëm bi mhm. muy lan muy li fi nekk baaxul nañ ko fi jëlee te jamono bi kenn ku nekk fipp na ber sa yoonu bopp te ku nekk yoon wi nga ber jour di ngeen daje ci benn yoon te benn yoon ba ngeen di dajee foofa la ñuy seppee kenn ku nekk doo bokk doo bokk doo bokk doo bokk mm-hmm. pourquoi parce que yow ci boppam jamono jooju yaa ngi gis ñu seppi nit ne ko doo bokk nga toog noppi ne ah bu bokkul sax moo ñu gënal fekk yow moomu di ko wax suba yow la ñuy seppi mm-hmm. buñ la seppee nga takk micro yi woote point de presse di wax fu nekk te ñu la koo def am na keneen kuñ ko defoon te bañ ko koy def ba nga ko déggee da toog ne moom mu bokkul garaawul. waaw mais est-ce que yooyu opposition yooyu opposant est-ce que pare nañu pour ne askan moo ñu tax a jóg xam nga lan mooy askan bu tax a jóg mooy nga ne ñun opposition bi li fi nekk baaxul nan la ñuy def ba fexe ba li fi nekk baaxul ñu jëlee ko fi. ñu ne nañ booloo joxante loxo joxante loxo mooy benn gis-gis moo am. xam nga xanaa ma man ci ci ci ci ren laa xam ne. ay nit dinañ bokk gis-gis ci politique ñu baree bari ay parti dinañ bokk gis-gis. xam tax ma ko mhm. maanaam ñi opposé ñëpp ñoo bokk gis-gis. te ko ci woo tey ci plateau mu ne bokkuñu gis-gis te ñoo bokk gis-gis. bokk gis-gis mooy ñoom ñëpp nañ li fi nekk baaxul. Mhm. dafay war a jóg. koo dékk micro nii ci mbedd mi laaj ko daan li fi nekk baaxul injustice bi na fi jóg comprendre mhm. mais boo ko woowee ci plateau ba di wax ak moom tey ne ko. lu tax àndoog diw dana bokkuñu gis-gis comprendre nga c'est-à-dire que mooy man daam lu ma yitteel man sama bopp muy lan muy man léegi seize seize ba laa xool seize ba mooy sama yitteel mais li ma yitteel du du du du du ay na fi jóg kese ku toog baax na déedéet gars yi na fi jóg di fi toog baax na déedéet mm-hmm. am na ñoo xamante ni ah dañoo opposé mm-hmm. mais dañoo gëm ne ñoom bu ñu mënta toog li fi nekk na continuer waaw loolu lañ gëm ñoom gëm nañ ne li fi nekkul bu fi li fi nekk ñoom bu ñu mënta toog rek li fi nekk dafi koon ne di nekk kon ñoom buñ ne li fi nekk baaxul bu baaxul bu baaxuloon kay dañ naan bu baaxuloon ba ñu bëgg mu fi dañ naan nañu booloo l'essentiel na fi jóg mhm. am ñoo xam ne dégg ñaan l'essentiel na fi ñoo xamante ni comme nga naan dañoo war a xeexal seen naataango bi nga xamante ni nee nañ ko doo bokk mhm. am ñoo xamante ni ñu ngi koy xeexal ci làmmiñ la yam pourquoi pour récupérer ay électeurs am. Mhm. pourquoi pour askan bi ne ah, ah kii mu ngi mu ngi protéger projet diw ak projet diw. yi gëmuñu loolu. am nañu dañuy politique politique diw mi nekk ci kaso bi wala diw mi ne doo bokk. parce que ay naxante. Mhm. naxante boobu noonu nag ñuy dund mhm. pour ñoom askanu Sénégal ñu ngi foofu. askan bi dañoo dépassé nga toog di leen gëmal ne maa fi nekk te gars yi te nekkoo fi. politiciens yi yëpp yu ci bari nekkaan daal lañ ndombal tànk moo leen yitteel. waaye du li fi nekk moo leen soof ndax bu ñu dee bu mënu caa jot dañ naan la fi nekk na continuer na continuer mais kon ñooñu loolu yitteelu leen caaxaan la war a bàyyi caaxaan kese moo fi nekk ak naxante naan nii yéeg nii ak nii mais ñoom seen biir boole leen woon opposition bi ñaari kandi candidat fi nekk yu baax ñu mer ñoom ñëpp mais loolu mooy dëgg waaw mën na ko bañ a mat sax ñoom ñëpp seen bopp benn instant sax yow booy analyser rek naan li fi nekk na fi continuer di nekk parce que mënoo ne cent candidats bien vrai que ne cent candidats moom mënuñoo bokk. deux cent waaw mais boo précisé ci cent candidats yi rek da nga ne dèjà moom cent candidats yi mënuñoo bokk. waaw gàtt gàtt ñaara ciy bokk wala ñett. ñaar cent yoo jël ñaara cay bokk wala waaw léegi nag ñaar ak ñett ñooñu ñeneen ñi fuñ jëm. ku neutre rek complice nga. ku neutre complice nga. moo taxit de. nag moo nar a bari. am ñoo xamante ni duñ neutre waaye la la waxoon rek comme que duñu dem. Mhm. li fi nekkoon na ko ne di fi nekk fa lañ jëm. waaw mais est-ce fi nekk bu continuer ñoom duñ taxawaat ci ginnaaw naan na fi jóg. dañ koy waxaat. prochaine fois. dégg nga la ñoom ñi mën ñu bëgg a nekk candidat. waaw bu mënul nekk candidat. Mhm. am na ci ñoo xamante ni dañuy dem ca la fa nekk ne na fay continuer di nekk parce que man mënaguma koo jël ndax doonaguma candidat. waaw mais kon Sénégal itteelu leen. si loolu laa la wax bari na ci ñoo xamante ni. Mhm. seen bopp siège ba la ñu gis ngir war caa toog mais du Sénégal ñoo bëgg siège bi soppeeku. comprendre nga du siège bi lañ bëgg mu soppeeku de mais ñoom mhm. seen bopp lañ seen te siège ba pour toog ci rek. nit ñi bëgg ñu soppeeku rek. très lañ bëgg a soppi. exactement <coughs> nag bu ñu dee ba xam ne ñoom mënuñoo toog ci siège ba. Mhm. dañ naan eh yow mu nekk ci bi continuer di toog wala ñu ne lan waaye nag bu élection am sax c'est-à-dire dafa am ñoo ni. dañ naan man damay bokk pour dem wala affaire yi yàqu comprendre nga léegi nag bu fekkee da ngaa toll ci affaire bi mu ngi nee man dama koy jëli su ma ci mënta jot nañ ko fa bàyyiwaat te liy yitte sa yitte nenga nga lii sa yitte mooy yittey Samba mooy yittey Paate ak Demba ñoom ñi nga xam ñëpp ay candidat lañ te ñoom mën nañoo dem au lieu que nga rangé wu seen ginnaaw ngir la fa nekk jóge fa mm, déedéet doo ko def ñoom mënaguñ koo yor naa dem rangé wu jëkkee ñu doxal kee bu doxalee ba toogaat ba doxaat ba toogaat. Mhm. yow yaay toogaat an e, e, élection prochaine di xeexaat pour bëgga demaat boo demaatu demaat rangé wu ci ginnaaw parce que ñoom loolu la ñu gëm ndombal tànk. ndombal tànk waaw. très bien ndombal nag dafa wute ak gëm sa réew. ak gëm sa gaa yi gëmuñu seen réew ndombal tànk lañu ñu gëm. Mhm. Euh, ba tey dañuy ñëw ci euh, politique bi foofu la ñuy desandi ba tey. mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 Ousmane Sonko euh, ginnaaw bi nga xamante ni rajo nañ ko ci liste électorale yi euh, juge Sabassy fay àtte woon na ko joxoon verdict bi joxe woon verdict bi di saako ñu dugal Ousmane Sonko ci liste yi ba tey antuwul euh, avocat état bi du waloon recours ñu demoon cour suprême doon ko àtte cour suprême cassé li nga xamante ni moo di verdict bi indi ko tribunal grande instance bu Dakar ñoom tamit lañ bët nañ ko ba jàpp nañu date bi ñu ko war a àtte di le 12 décembre lañ ko war a le 12 décembre boobu itam euh, ci la 11 bi ci la ñu commencé euh, déposer li nga xamante ni moo di parrainage yi DGE moo ko xam waaw. le 11 la ñuy déposer parrainage. waaw ba le 18 le 12 ba le 18. waaw le 12 ñu àtte ko. waaw. Euh, man avant foofu dafa am benn loo xam ne man dafa ma jaaxal ci suñu justice. parce que mhm. dañuy wax le temps de la justice ne pas le temps des autres. déedéet. waaw léegi. Ousmane Sonko suñ ko attee suñ ko attewul ñoom seen calcul bi ñu def mooy suñ ko attewul bàyyi ko ci kaso bi moom mën naa jóge ci kaso bi dem nekki président mën naa doon électeur mhm. moo tax ñu bëgg a profitoo atte ko balaa looloo am su ko defee buñ koy ne ñu condamné ko buñ koy bàyyi ñu bàyyi ko mhm. buñ koy dugalaat ci liste mais ñaata personne wala ñaata doomu aadama ñoo nekk ci biir kaso bi tëdd def fa ay at seen dossier tolloog dossier Ousmane Sonko wala ñu gën koo fleur te genn lañ métul seeni dossier mhm. parce que xam nañ ne kii buñ ko fi bàyyee benn durée bi force day nekk électeur day bokk si ça ko kon looloo tax ñu bëgg a taxañ taxañee dossier bi pour atte ko pour mën a tàggalew ko ak moom est-ce nga bu baax li ma wax. Mhm. mais est-ce kon jaaduwul woon tamit ñooñu nga xam ne tëdd nañ ci kaso bi ay at. ay juróom benn weer ak ñaari at ñooñu tamit est-ce que baaxuloon tamit ñooñu même su fekkee ne du attew ñu leet mais ñu bàyyi leen ñibbi parce que nit koo xam ne tëdd nañ ci kaso ñaari at soo ko attee tëj ko ñaari at yi day génn mais libéré ko mu dem te xam ne kooku moom su amee jom wala mu amaat lu muy bañ dootul def lañ ko fa indee. Mhm. léegi nag Ousmane Sonko danañ ko atte le duñ ko attewaat le 12. est-ce que le 12 bi duñ def comme bi àtte bi ñëw taxaw téye fa nit ñi ba ay vingt heures 22 heures ñu renvoyé waat ko <laughs> suñ ko àttee. Mhm. parce que man dama dama dama da yaakaaroon ne justice bépp benn bopp lañ. Mhm. man sama xalaat dama jàppoon ne justice moom koo ci laal rek laal nga keneen. du doon de. ah Sénégal léegi nag seen moroomu justice jàng fa ñu jànge mhm. am diplôme yi ñu am. waat ni ñu waatee. ñu yaakaar ko ba jox ko ab région bu lëmb mu di ko jiite parce que du n'importe qui la ñuy jox région yaakaar naa dañoo hmm. am eh, département am régional par niveau la hmm. donc ku dem régional rek egg nga yenn niveau yi hmm. mu taxaw nag sukkandiku ci nga xam ne dafa sukkandiku ci trial bàmmeem ne lii laa jàng lii la texte yi wax lii laa atte léegi ñu taxaw ne ko li nga atte ñoom seen biir ñu taxaw ne ko li nga atte baaxul xam nga nan laa ko mën a misaale imaam bu taxaw ci minbar bi xutba ba pare. Mhm. beneen imaam taxaw ci beneen euh, juma ne ko li nga xutba baaxul. te ñoom ñaar ñu bokk benn téere bi ñuy jàng. Mhm. ñoom ñaar ñu bokk lenn li ñuy waxtaane muy muy diine jeeg lislaam bi. Mhm. mais est-ce que bu boobaa ñoom nawente nawante la ñuy wax dana am ci seen biir. nawlonte nawlonte dana am ci seen biir. est-ce que léegi ñun ñi nga xam ne bokkuñu justice bi duñu xeeb ñenn ñi. si. sëñ Fallou bu njëkk koo masa wax ne ko nga am rek kayit wooy lijjanti tribunal mu war a xëy dem lijjanti ko jotewut ak ñoom dara lu dul moom moo fa soxla kayit dana ko waaj day tiit dana tiit dana tariw saar wum xam dana def lépp léegi nag buntu justice ngay ñëw fekk nit ña toog fa di naan ataay lan moo ko waral parce que nit ñu exposé seen bopp ci biti mhm. te kilifa du exposé boppam mën na ñëw nag am ak nit ñi relation toog wax pour su ko nit ñi soxlaa ñu wax ak moom mais ni ñu ni ñu exposé seen bopp ba nit ñi ñeme leen taxaw ci mbedd yi ñuy wax ñu leen di yooxu mhm. doo fi waxee loolu lépp am ko loolu lépp man jàpp naa ne la amoon bu njëkk ci justice moo amul léegi ci justice bi léegi nag Ousmane nañ ko àtte ngir yàlla li juge Sabali fay wax buñ ko mënee appliquer ngir Sabali mi ko Sabasi fay mi ko àtte du ngir Ousmane soxna euh, Sonko de mais ngir ñoom ñu protéger seen nawla bi ci nekk ba nga xam ne su atteetee nit ñëpp seen xel dal ñoom nañ protéger kooku nañ ko couvrir jox ko gëddaam mhm. ngir mu mën a siggi siggi na maanaam mu mën a siggi ci kanamu justice mais siggi na ci kanamu population bi mais nag mu amaat yenn gëddee ci biir justice bi parce que xeebaate dafay dafay mel ni dafa am ci biir justice bi walla farandoo tamit dafa mel ni dafa am ci biir justice bi te justice du doxe noonu Sénégal nag ñëpp a ngi déglu li may wax ne Sénégal euh, benn parti bi ñee ko moom mais benn parti bi Sénégal yee ko moom te li ëpp ci Sénégal yi dañoo fare benn parti bi ñi ngi toog ñi ngi déglu ñi ngi waajal le 12 bi le 12 boobu tamit dañuy ñaan lépp lu fa mënti xew na Sénégal yi am dal mhm. parce que boo dégg euh, ci mbedd rumeur yi am ñoom dañoo pare que si ñoom leneen luñ fa wax lu dul les juges saba si fay wax moom ñoom dañuy jël seeni matukaay. Mhm. parce que ñoom dañu ne quel que soit alpha justice acté na ba pare donc kenn warta woon a acté jàpp tamit ne dossier parce que amuñu notion ne justice ni muy doxee mais dañoo defoon ne cour suprême lu fa dem du wàccaat. Mhm. dañ ko fay acté benn yoon. donc suñ ko wàcce waatee nag ñoom ñoo xam li tax ñu wàccee ko parce que ni kii la mais daal ñi ngi ñaan yàlla lu 12 boobu di ñëw di talaata bii di ñëw yàlla na jàmm am Sénégal. ni ko nit ñi yaakaare tamit yàlla na amee noonu. Mhm. su ko defee Sénégal jëm kanam sëñ mhm. Fallou. Euh, voilà 88 la 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Fallou ñu ngi leen di ziar baax. ñu lay delloo ziar baax alhamdulilah. di rafetlu émission bi. jërëjëf. waa xanaa 66 bi 66. benn la kay. ñoom ñëpp bawoo ENAM ñoom ñëpp xanaa jàngiwuñ fa. Mm-hmm. salaamaaleykum ko waa Dakar. Mm-hmm. ba pare keroog ñuy taxaw naan Ousmane Sonko Dakar la dëkk. ay mag yi jëmm di ko wax te te ñu la waayaat. luñ bëgg si Dakar lan lañ bëgg si si si Dakar yi. leneen mooy tuuma bi nga xam ne Madiambal Diagne ak xam mbay kii. Yérim Seck ak député Matar Diop moomu loolu yoon du jàll mooy liñ tuumaal financement yooyu yaa ngi may dégg waaw seen journal fecckat boobu 2019 tuumaal na ko si Ousmane Sonko ba société boobu génn weddi ñu xamal ko ni dara du si dëgg dañ arrêté seen yii ñuy def maanaam tiit waxi tiit ak jàndaxe moo leen dal ala kulli alin danañ leen dëjjate sànni ko sa àll ba 2024 loolu doo nga leen tiital nañ ñëpp focus Sénégal yëpp nañ focus si Ousmane Sonko 2024 ñu teg ko si bopp réew mi merci jërëjëf. baax na jërëjëf. Euh, jërëjëf 88 la 628 19 05 wala 88 628 81 08 bu ko defee rek incha allah bu leen ci jaaree rek daa ñu ànd ak yéen.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 keneen ki bu d'accordul day dem sol yéreem def la mu war a def ka daan sol yéreem def la mu war def ñu ñibbi ka d'accordul day dem def recours am mais teewul jox nañ victoire ba kee ba mu dem. waaw comprendre nga. jox nañ kee victoire ba mu dem yoonam ba seen koñ di jumelé yu ca aju. waaw nga. ba mu jàll ci leneen. waaw moom mu dem defi recours am après la ca tukkee ñu ne ko amoon ndam da ngeen a match nul mu d'accord ne match nul la. Mhm. mais amoon na ndam. waaw mais man. justice bu Sénégal laa gis man c'est la première fois man ma gis ko juge àtte ne dugal leen ko ñu war koo dugal ñu ne duñ ko dugal waaw tant que defuñu recours ba àttewaat bu pare kon mhm. la première fois ma gis ko man li ma mën na d'accord mooy juge Sabassy Faye ñàkk na xam-xam amul xam-xam am na ay xarit fee ànd naak ñe àtte na la ko soob ba def lu ko neex yooyu yëpp buñ ko waxee man d'accord naa mhm. mais li mënul d'accord mooy dogal bi mu joxe duñ ko appliquer waaw ah. maanaam dañoo war a appliquer dogal ba pare doog di def seen recours ci daa am xarit fee aayul amul xam-xam deful lii deful lee mhm. comme naan ah. bañ ne bañ ne Ousmane Sonko kat dugalaat nañ ko ci liste yi mhm. parce que loolu la saaba si fay wax waaw ah. comme naan man loolu laa d'accord ñoo xam ne ñëpp dugal nañ ko nga am foo mën di dem boo demee eh, caisse et dépôt et consignation fekk fa liste fekk fa tur Ousmane Sonko DG nga fekk fa tur Ousmane Sonko foo mën di dem fekk fa tur Ousmane Sonko. ko parce que juste Saba si fay joxe na dogal pour ñu dugal ko ci. Mhm. mais ñu ne duñ ko ci dugal recours dafa am dañuy dem recours léegi recours bu dikkee lu mu àtte ñu da koy def. waaw ñu dem def recours cour suprême cassé seenu verdict indiwaat ko tribunal bu Dakar. Mhm. pour quelle raison. pour quelle raison. pour quelle raison kenn xamu ko ñu naan ay signature kee signature kee signature ke moo tax lan moo ñu jox logique gu ne kii kat lii moo tax nangu la signé ah. bu ñu joxee information nañ ko diviser. ñu ne hmm. diw kat lii moo tax signé wul ah. mais diw signé wul rek nga teg ko ci loxo askan askanu lëmm duñ comprendre ñu indiwaat ko euh, Dakar Dakar war ko ate dakaar lan lay àtte. moo ma jaaxal lan la Dakar di àtte. juge saaba si fay lay àtte waaw juge saaba si fay lay lëñ bat la mu wax fu mu ko teg waaw juge saaba si fay lay lëñ ndax moom lam ko dénk am na xam-xam ba mu déet waaw mais si loolu la loolu la ñuy lëñ bat wu ñu Ousmane Sonko juge saaba si fay la ñuy àtte pour quelle raison li mu wax est-ce que dëgg la am dëgg àtte boobu fa am di dañuy lëñ li mu wax dëgg la ci loi la ko teg ci yoon la ko teg wala fu mu ko teg foofu lañ loolu la ñuy àtte àtte waatuñu Ousmane Sonko léegi ban réew la ñu nekk justice toog di àtte moroomu justice am ci ban réew la ñu nekk li nga wax mooy dëgg parce que dañoo wanteer seen bopp ci mbedd mi ba askan wi léegi ñume leen loolu moo am bu njëkk askan bi ñume ñu leen yow da yoon naan yónni yónni yónni yónni police ngay wax wala tribunal waxuñu yónni oto bu la romboon fii rek nga daw laaxatu ji temps yi élection élection présidentielle wala élection communale xam nga boo xoolee bureau yi bureau de vote yi dañ fay yóbbu ay policiers. waaw policiers yi bu ñu demee benn policier rek boo fa tegee mën na garder bureau bi yëpp. centre bi yëpp mën na koo garder. parce que xool gars yi du yëngu. xale yi duñ fa taxaw. pourquoi parce que gars yi dañu leen a bàyyi woon xel de trop. nga xamante ni logique bi sax moo nekkoon yoon. Mhm. askan bi bàyyi leen xel. mais lan moo tax askan bi bàyyituñu leen xel parce que juge mooy àtte juge taxaw weddi ko c'est la réalité juge mooy àtte juge taxaw weddi ko nit taxaw fëla saaga menace de mort ñu teg ci bët bàyyi ko muy dox ay soxlaam nit taxaw fëla wax xalaatam ñu ne xalaat bi daa exagéré hmm. nañ ko jàpp looloo fi am loolu nan la mën a amee cim réew askanu lëmm taxaw mën a tee am confiance ci nan la mën a tee am cim réew askanu lëmm taxaw di la ragal wala di la bàyyi xel doyatul de bu ñeemoon foofu sax garaawul ñu jël leen exposé leen ci mbedd mi mhm. ne leen jàkkaarloo leen seen askan di dóorante mhm. askan bi la daan daw mhm. mën a taxaw tey nga yor lacrymogène ñu dóor ñu fàddaat lacrymogène mu del si ceew askan bi la daan daw